de développement Annabelle et le Fonds national de développement agro-silvo-pastoral FMDAPS. Permettez-moi à cette occasion de souhaiter à, à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue dans la région de Café, plus particulièrement dans le département de Koundou, et de vous dire très sincèrement merci pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cette importante rencontre qui marque une nouvelle étape très importante dans notre politique de développement aux dynamiques locales. Dans ce siège, en soutien au projet des agricoles du plan Sénégal émergent, l'Union européenne a organisé, via l'agence belge de développement Annabelle, le financement du projet pour Initiative Agricole Centre, par le biais du Fonds national de développement agro-silvo-pastoral. Cet atelier qui est l'aboutissement de l'engagement des partenaires techniques et financiers pour traduire l'esprit de l'acte de la décentralisation visant la construction des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. En amont du financement des projets des services agricoles, des acteurs des filières ciblées, les FMDAS comptent sur le sujet de suivi, de supervision, les projets et programmes, les ONG et les organisations de producteurs du département de Kungel sur le projet Ngepé. Mesdames et Messieurs, cette orientation traduit la volonté du gouvernement du Sénégal d'appuyer non seulement l'engagement de l'État de développer les acropoles visant à apporter de la valeur ajoutée, mais aussi engager les collectivités territoriales dans une démarche nouvelle de développement économique local visant à promouvoir les objectifs définis dans le cadre du PSE et d'en faire un levier clé du développement local et de lutte contre la pauvreté. C'est justement dans cette perspective de généralisation de ce projet dans les collectivités territoriales du département que s'inscrit l'appui du FFTAS pour l'organisation de, cet atelier d'information et de partage. Donc il s'agit aujourd'hui d'informer et de sensibiliser les acteurs départementaux sur les dimensions, de ce projet et d'en définir les modalités pratiques de son application. Vous comprenez aisément l'importance et la pertinence de cet atelier de partage, temps, puisque notre pays s'est engagé à faire de la décentralisation un véritable levier de développement. Nous comptons, nous pouvons compter sur l'engagement des uns et des autres pour l'atteinte des objectifs fixés à cet atelier qui garantiront pour sûr une bonne appropriation de cet instrument dans notre département. Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, vous dire que vous pouvez compter sur l'accompagnement constant des autorités administratives du département dans vos actions quotidiennes et futures. En souhaitant plein succès à, vos, à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier de partage et de sensibilisation sur le projet du et je vous remercie de votre attention. lancé donc, euh, le projet de Bay, financé par le Fonds national de développement de pastoral à partir, en l'occurrence, Centas, avec ses partenaires, Annabelle, et aussi l'Union européenne. C'est un projet qui concerne trois départements. Euh, c'est une particularité parce que dans les autres départements, on a la ça. Parce qu'ici, à monde dans un département semencier où on a une grande production de céréales. Quand on a choisi le site de Toulon, les gens ont réfléchi pour dire qu'il faut mettre votre plateforme au niveau de Parce que aussi, c'est un endroit un peu enclavé, mais aussi où il y a une grande production de céréales. Donc il est heureux de remarquer ici au niveau de Toulon, nous avons ces deux plateformes. C'est un projet qui va débuter d'ici la euh, début de là acteurs locaux, les acteurs territoriaux, d'avoir une unité de trois Ça, c'est dans le cadre de, de l'État du Sénégal, en mettant en place les agropoles, du Sénégal. Et ces deux plateformes concernent l'agropole. Donc la centre, nous avons donc ces plateformes-là ici et ça va nous permettre de vraiment la production, mais aussi euh, pour de lutter contre le chômage des jeunes. Parce que ce sont des petites industrielles qui visent à transformer les produits qu'on va cultiver aussi dans cette compagnie. Je pense que ça aussi, c'était une bonne approche. Parce que vraiment, c'était le ventre de la chaîne des valeurs. Donc, le côté industriel il faut des problèmes. Si aujourd'hui, on a ces pratiques là dans le département. Franchement, ça va beaucoup dans l'état de, l'industrie euh, du pays, mais aussi dans le cadre du développement des politiques territoriales. En tant qu'autorité locale, comment vous allez faire pour porter le projet de niveau Bon, le portage du projet, on l'a commencé aujourd'hui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, on a aujourd'hui cette CDD le euh, de partage d'informations. Nous avons il y avait une grande ambiance, on a plus de 60 personnes qui ont assisté. Maintenant, il faut démultiplier ces, ces séances-là, de, partage À partir de cela, maintenant, on va, il y a un plan de communication pour impliquer donc euh, la presse locale, les radios communautaires, les télé locales qui sont là et les leaders euh, communautaires pour que les populations puissent euh, vraiment s'approprier de ce projet. Donc, on est en train de dérouler donc, tout ce projet ce projet-là puisse euh, vraiment réussir dans le département de Koungheul. voilà tey dañ fi ñëwoon pour euh, donc def le lancement du projet Koundé Mbaye bi nga xam ne Fonds national loolu agriculture pastorale financé mais foofu si jàppale mooy ses partenaires qu'on appelle l'Union européenne loolu tax tey ñu ñëw fi def benn série boo xam ne pour waxtaan soo fi xamal projet bi les acteurs locaux te loolu bu ñu ko defee tey gis nañu ñëw nit ñi ñëw nañu en masse parce que on a plus d'une soixantaine de waxtaan wàll boobu li ñu jàpp mooy département de Koungheul dafa am ñaari plateforme yoo xam ne dañ ko a def fii ci département transformation structurelle bi nga ko bëggee il faut ñu fexe ba nga bay ci benn wàll loolu moo nekk solo si sa naa tey nag activité bi ñu ko mooy ma lancé projet officiellement département parce que boo xoolee ci la bokk ci la bokk ci la bokk départemental tey daje na boo xam ne dafa laaj ñu def ko bi nga xamante ni bii porte bi moom lañ koy donc financement boobu ñu ngi liggéey daal moom lañ ko def pendant vingt ans ci déroulement boobu nag dañuy ànd ak participation bi nga xam bàyyi ko ci ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire parce que Mayelsa aussi mooy ancrage bi en tout cas techniquement mooy ancrage bi projet bi donc moom daal gis nañ ne si ñetti département yi Koungheul ci la bokk choix bi lan moo tax aussi ci biir département bi si neuf communes la mais si ñett ñaari communes ngeen choix di teg comme ay plateforme. comme choix commune bi je pense que bu ñu nee question plateforme moom xaj na loolu wàllu infrastructure bi la parce que projet bi ñu ko defee dafa am côté boo xam ne infrastructure la am côté boo xam ne maanaam li ñuy wax soxla accompagnement bi la côté xaar bi nag dañuy infrastructure bi nga xamante ni mooy plateforme départementale yi ñu def ci DSE dañoo jàpp ni bi ñu xoolee critères yi nga xam ne en tout cas bi site bi war a am bi ñu ko xoolee critère bu à travers surtout Touba gën a rafetlu ci critère critère yooyu nag critère la yoo xam ne waa bos liggéeyoon ñu ministère de l'industrie liggéeyoon ci gouverneur yi aussi liggéeyoon donc ñun bi ñu ñëwee dañoo dëggal rek choix bi nga xamante ni moom defoon nañ ko par rapport ak site bi war a appliquer plateforme maintenant nag c'est vrai que xëy na idée Mouride dañu koy yóbbu à travers village Touba bu mais plateforme départementale dire que kon département bi yëpp la concerne acteurs yi autour des filières moo xam maïs moo xam moo xam euh, sorgho moo xam gerte moo xam aussi filière horticole yu mel ni pomme de terre ak euh, soble donc filière yooyu boo ko xoolee daanaka plateforme activité yi ñuy am de stockage yi nga xam ne war ko faa tabax tabax fa li ñuy wax aussi ay atelier de transformation mais en même temps bu fa ay bloc administratif ak ay services yoo xam ni jigéen ñi aussi rôle bu mag la ñuy joué si filière yooyu surtout boo jëlee lu mel ni wàllum transformation mais dafa am ay obstacles yoo xam ne dañuy wax ni barrière sociale mooy tax ba xam ne moom ni ñu war a participer activement ci processus bi duñ ko mën donc ci biir plateforme bi sax waajal nañ li nga xam ne mooy peut-être mën naa nekk ay crèche wala en tout cas ay système de garde de l'enfant jigéen ñi bu ñu ñëwoon sax tey ci transformé indi seen unité bu ñu ñëwee am na koo xam ne war nañ fa mën a teg seen donc loolu daal nekk na ay waajal wax ni projet bi waajal na ko pour que vraiment mu nekk un projet aussi très inclusif c'est-à-dire petit producteur bi xeebu ko ba ci grand producteur bi ku nekk dina fexe ba sa bopp ci projet financement bi ñu lay demee ci wàllum koppar wala matériel non financement bi mën nañ ni wax naa ko a FNDAS la ñu liggéeyal FNDAS am na benn stratégie bu muy déployé yoo xam ne dañ koy tuddee service agricole mais surtout service à c'est-à-dire day dem si producteurs yi xam seen i càmbat xam seen i li ñuy wax besoin sur cette base mu ànd ak ñoom tëgg ay sous projet yoo xam ne léegi moom guichet financement bi ko permettre mu financer les projets yi financement bi nag du ñoo xam ne ay koppar lay doon wala ay matériel agricole mais c'est surtout l'accompagnement comme li ñuy wax soft c'est-à-dire bu laajee ay formation pour renforcer xañ na ni ñuy utiliser engrais ni ñuy defaree tos yooyu fexe xam si mën na ko def bu laajee laajee aussi li ñuy wax ay diffusion technologie parce que boo xoolee léegi mbay dafa bare ay xarala yu donc xarala yooyu tamit effet ndax dina si liggéey ba nga xamante ni bu ci liggéey ak producteur bi après dinañ ko mën a utiliser ISRA aussi volet recherche bi am na solo bu mag boo xam ne effet ndax boobu dina si ñëwaat par rapport ak intervention bi ñuy def dans le cadre du Jean Charles Faye, directeur exécutif du Fonds national de développement agrosilvopastoral eh, tay dañ atelier de lancement euh, maanaam projet euh, initiative euh, centre donc nga xam ne day jàppale béykat pour projet comme ko waxee dafa am comme plateforme tabax infrastructure def ba nga xam ne ni unité yi dina am foo xam ne dinañ leen mën a teg ba ñu liggéey euh, beneen bi nag li nga xam ne de euh, mooy mooy war intermédiation commerciale maanaam jënd ak jaay xam ne ne balaa ngay dem di produire ba nga am koy jaay donc loolu il faut lëkkaloo boo xam ne dina am entre xam ne ñooy ñooy produire mooy ñi nga xam ne ñooy yare produit ak ñi nga xam ne ñooy ñooy donc euh, loolu

léegi ñu mën a am bi nga xam ne moo doy pour yóbbu ko ci transformation ci loolu nag Europe Union européenne ànd ak ENAB coopération belge ñu ah, comme Sénégal dafa tëgg ay kuréel jëm jublu ko ci loi d'orientation agro-sylvo-pastoral benn bi yi muy Fonds national développement agro-sylvo-pastoral muy war a taataan lépp luy xaalis bi war a dem ñi nga xam ne ñooy jàppale béykat muy boo jëlee kuréel yu mel ni ANCAR nga xam ne moom mooy tàggat béykat yi leen conseil ñeneen ñi yi mooy day wàllu ISRA ak sukat xaalis bi jaar fen mun a dem ci kuréel yi mais dafay laaj kuréel yi aussi am seen i bëgg-bëgg wax ko kuréel yooyu ñun ñu jël xaalis jox ko kuréel yooyu liggéey ak ak ak béykat yi ba nga xam ne ne dina am luñ ci njeexital bi mooy euh, productivité rendement yi ñu mun a am lu doy yóbbu ci unité de transformation sax waa ENABEL ne ah ci wàll boobu service agricole dañuy mécanisme de financement des services agricoles nga xam ne loi d'orientation agro-sylvopastorale état du Sénégal moo ko teg foofu ñu jaarale ko foofu la ñu nekk di di def fii ci agropole centre boo xam ne dañ koy def ko waxee naa ne yaatal sax dina am mais déjà il faut ñu am des résultats donc loolu il faut ñu jaarale ko fii ci ay filières maanaam filières yi am nañu ay filières yoo xam ne ñoom la war a liggéey ci filière prioritaire yi comme ni ñu ko waxee opérationnel du plan Sénégal émergent taataan na ko génne ko filière gerte si la bokk mboq si la bokk dugub si la bokk ak filière uh, maraîchage yi ak même xorom sax yenn gox yi nga xam ne dañoo nekk ci ñetti région yi ci la bokk donc loolu mooy filière yi nga xam ne acteurs yi dañ ko war a production transformation commercialisation ñoom ñooy lëkkaloo ñu mën a liggéey. lancé projet bi kañ la fas yéene euh, balaa nawet bi bëgg nañu vraiment activités yi ñu démarré pour que nawet bii di ñëw vraiment acteurs yi commencé liggéey. donc c'est mooy suñu objectif objectif bi ñi nga projet comme nous avons un projet de 10 milliards 10 milliards dañu 2 milliards 500 le financement des services agricoles avec intermédiation commerciale parce qu'il faut que nous ba nga que nous nous acteurs yi dinañu

acteurs yi ñoo nekk au cœur maanaam ñoo nekk ci digg ñun nag dañuy ñëw pour jàppale leen donc loolu mooy mbir mi nga xam ne moom lañu nekk di yaakaar nañ ne nañ ci amee résultat Sénégal am gis nañ ne projet bi war def ñeent ci weer juróom-ñett dañuy wax gunge mbay naka la naka ngeen taxawee pour gunge baykat ñoom ñoo soxla gunge ci wàllu surtout formation waaw loolu mooy li nga xam ne moom la ñu jagleel FNDAS Euh, gunge dafa bokk ci li ñuy wax service agricole service agricole boo ko léegi ci wàllu ñun suñu li ñuy wax mooy gëstu

loolu dafa am structure yoo xam ne ñoom ñoo ko moom par exemple kuréel bu mel ni ANCAR ak yeneen ONG yi ci wàll boobu dañuy war a wasaare li nga xam ne moom lañ def mais ci wasaare boobu dafa yi acteurs la war a tàggat pour que ñoom ñu mën a jot jàpp jàpp mbir mi mun a demal seen bopp donc loolu projet bi daf ci bàyyi xel bu baax baax moo tax mu ne ah il faut ñu jàppale kuréel yooyu di ko jaarale nag ci structure ñu ko wàccee mais nag ñuy topp di nat la nga xam ne moom la ñuy def donc loolu dafa am solo trop ci li nga xam ne moom lañ liggéey ci ci gox yi nga xam ne ne agropole centre bi daf ko war a